tey ci vidéo bi dama leen di wan nan ngay créer sa logo nga créer ko créer bu gaaw sans nekk ci di sa benn application ok li ngay def mooy nga daal di dugg fii nii ci Safari bu dee iPhone nga yor bu dee Android nga yor tamit nga daal di dugg Google Chrome laa boo duggee li ngay njëkk ba tàppi mooy logo point mooy nii tàppi war naa ko ba pare n'est-ce pas waaye logo point après boo ñëwee fii nii. ngay xool sa tour ngay def mooy ne entre yow business name sa tour ngay def wala sa business ou bien turu entreprise bi ngay créer après là donc man comme que créer ma dara dama leen di wan rek ma tapé momo gis mooy ni après fii nag sa comme li ngay personnaliser wu yow wala sa sa entreprise ci li muy yëngu ngay def fii quoi moi, je vais parler de vision. amener le slogan bi boko quoi pour Le logo bi day renfermer wu ak business ok là ñu daal di lan la oh, gis logo TMC deuxième logo bi nice voyez voyez voyez envoyé logo nga xool ba tey logo bu la ci neex mën nga ko jël nga daal koy gën a personnaliser gën koo defaraat ba mu nice ñu xaar mu ñëw connexion bi xaw a naqari tuuti nii quoi yëpp nga sensé couleur yi bu la neexut nga def lu la neex couleur yépp mën koo changer su dee neexu la tu vois là mooy changer couleur bu tur bi léegi après mën nga amal fi yeneen logo yu xaw a mel ne moom donc sama gars yi bu dee vidéo bi neex ya na la ou bien vidéo bi dimbali na la maa ngi lay ñaan nga daal di abonné s'il vous plaît abonneel fii nii ci dëkk bi TV yeneen vidéo yu mel nii dina ñëw